بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك العبادة والخدمة نغي لين دي نيو سيارة دي ديلو سي سونو جوتاي بني فرل دي سيق تاي نك lu mat fukki laaj yu fi aksi laaj bu njëkk bi dafa jëm ci gëtt gëtt yi ñuy jëfandikoo muy parfum yi ta alcool di ci am muy laaj ndax gëtt bu amé alcool ndax sañes na koo jëfandikoo euh, alcool boroom xam-xam yi ci seeni gëstu ci wàllu gëtt yi ak alcool ji ciy dem seetlu nañ ne am na ñaari xeeti alcool yu am benn alcool bi lay màndal ci alcool moom dañ koy soppe soppe soppi ba nekkatu ca bu dee boobu moom euh, dana dagan jëfandikoo ko ci anam yépp ndax li li doon màndal ci alcool ba tax ñuy ñuy tere naan ko loola nekkatu ca ndax dañuy wax ne sàngara sàngara li ci màndal nit alcool jala alcool joo xam ne nag soppi ko ba mu doon leneen bu xasee soppiku ba doon leneen nga xam ne màndarga nekkatu ci kon du nekkat luñ tere kon xeetu alcool boobu moom bu nekkee ci gët du du yàq dara danañ ko seen jëfandikoo daal beneen alcool bi nga xam ne nag moom moo gën a bari ci gët yi moom mooy alcool bi màndal ndax soppi wuñ ko so soppi gu koy génne ci muy màndale loola nag borom xam-xam yi liñ ci wax ñu gën a bari daal liñ ci wax mooy bu xasee doon alcool joo xam ne dana màndale rek buñ ko boolee ci gët alcool gët googees day doon da yor àttub sàngara rawatina ci wàllu ci tere gu ñuy tere sàngara daal da yor àtteem ñii dañ ne dañ war àttem ci wàllu sobe gi ndax sàngara dafa soobe ca na ko ñooñu jàppe kon mooy des ko sañ jëfandikoo ci yére walla ci jëmm ndax kuy kuy kuy kuy kuy jullit sañ warta warta taxal sobe yéreem walla walla walla jëmmam te tay ko tam tam doon lu mën a ñàkk Euh, am ñu ne da koo nuuru ci jëmmi tere tere jëfandikoo gi ci genn anam rek niñ teree jëfandikoo sàngara ci genn anam rek dañuy tere jëfandikoo lu am alcool bu àgg ci màndal ci genn anam am nag ñu wax ne alcool ku ko jëfandikoo ci lu dul naan terewuñ ko naan ga ñuy tere waaye ko jëfandikoo ci lu dul naan duñ ko tere waaye li gën bari daal mooy Euh, wax ne moom ginnaaw alcool ju àgg ci màndal ma nga ja rek alcool ju àgg ci màndal nag pourcentage lay doon euh, waaye wax nañu nag pourcentage bu néew a néew rek dana màndal cinq pour cent daf mel na bu amee bu amee parfum boo xam ne alcool mat na ca cinq pour cent rek kon da yor àtteb àtteb luy màndal euh, am nañu wax ne sax bu ko yéesee sax man na caa man ko yu sax dan ko wax sama 2% dan ka dal digënté 2 5% dal digënté bobu bu ko ci maté rek man nay mandal bu maté 5 mo dana mandal 50 bu ko pé nak kon dal li xeyna li gëna wor dal ci kuko man moy moy may to jëfëndiko may to jëfëndiko euh parfum yi am alcool euh rawati na niko ci laaj waxe sax fogg na ko xamne munta ragnel ragnel yi ñuy wax di mëna xam ñaata pour cent moo ci nek ak ban xéetu alcool mo ci nek kon bu ko mënee moytu mo gën amna ay gëtt ay parfum yu amut alcool euh muy jëm am yoy ta yoy yi ci ëpp mooy bouteille yu ndaw yi ñuy défar ni yu ndaw ya ndaw non nga xam ne du doon yu ñu ko tuddee du doon yu ñi bés muy muy sérati yooyu ñu ci bari mooy yu dul am alcool waaye yi nga xam ne dañ koy fonk di ko defar di ko kii lu ci bari day am alcool ndax alcool ji lu ci bari ngir sàmm ko la ngir téye ko lu yàgg maanaam kon daal ku mën a moytu loolu moo gën euh, xam naa jafe na nag ci jamono ji waaye daal ku ci ku ko mën a moytu kam kàttanam mooy gën moom bu jëfandikoo yi amut alcool tey moytu yi am alcool ñaareelu laaj bu def ne ki woor Euh, mazi yi génn ci moom te nag dulum sabab lu moom mooy defut lu mas yu baaxoo génne lu ma lu loo xam ne ci aada danay génne masi nekkut di xalaat nekkul di xool nekkul di wax xalaat wala xool wala wax ju mën naa sabab mas bu génn defu ci lenn waaye dafa génn noonu rek bu demee noonu koor gi moom yàqu ko man yu mi gën a rëy mas yi sax bu fekkee noonu la demee du yàq koor sàkkantuma nag mas bu dee man yi moom day waral mu sangu rek bu dee mas yi nag du waral sangu sax du waral sangu sax dana yàq njàppam moom kon day raxas béréb béréb ba rek te jàppaat bu fekkee aajo jàpp ñetteelu laaj bi <coughs> mais li ñuy wax bokkaale gu ndaw yonente bi ci ay xadisam eh, wala boog boroom xam fa neen dañuy wax ne ku naan bu soobee yàlla ak diw loolu bokkaale gu ndaw la kuy giiñe ku dul yàlla itam bokkaale gu ndaw la loolu dëgg la dëgg la loolu wér la bokkaale gu ndaw la ndaw gi nag lu tax ñu tudde ko gu ndaw mooy goo xam ne du génne nit ki ci diine ji lañ ciy jublu mooy ki wax wax googu duñ ne ko defa génn ci diine ji bokkaale gu mag moom mooy ko ku ko koy jàppe ku génn ci diine ji ndax diine ji du diine bokkaale la bokkaale gu mag mooy bokkaale gi nga xam ne ku ko def dañ koy jàppe ku génn ci diine ji gu ndaw nag mooy ku ko def duñ ko jàppe ku génn ci diine ji kon day mel li muy firi mooy daa nuru bokkaale lay firi ku ne bu soobee yàlla ak diw day nuru loolu ndax buñ naan bu soobee yàlla mooy dañoo xam ne coobare eh, dara du sotti lu dul ci coobare yàlla lu sotti lu nekk itam coobare yàlla rekk coobare yàlla moo tax mu sotti te yàlla rekk moom loola moo am loola ngir yi aju ci coobareem moom rekk yeyoo loola ba tax na ko ci dolli keneen day mel ni kooko da caa am dara day nuru bokkaale kon moo tax mu ko ci bokkaale gu ndaw naka noonu kuy giiñee keneen tam wala leneen ba tey ngiiñ li muy firi kuy giiñ ci yàlla mooy day wane na yàlla ngi mu ngi nuy seere ndax yàlla dara ump ko liy xew lépp lay yëg liy xew lépp lay xam ba tax na lii may wax nii maa ngi lay xamal ne yàlla mi nga xam ne lépp la xam lépp la fekke moo ma ciy seere boo ci doole keneen day mel ne kooka da nga koo jox loola moom itam da nga koo jox melo woowa te melo yàlla rek ko jagoo moo tax kuy giñ ci keneen dañ koy jàppee ku bokkaale bokkaale gu ndaw te yonent moo ko wax moom koy wax moom àggut ci boole tudd sax gu ndaw waaye bokkaale na la wax fees am na fu mu ne sax weddi na waaye borom xam-xam yi nag buñ boolee. wax yi yonte bi wax yëpp ak alxuraan yëpp buñ ko boolee ci lañ koy firee ne bokkaale gu ndaw lay jublu loolu kon noonu la demee kon ku koy def na koo moytu danay faral di wax daal ne ab julit daa war di wax wax ju leer jëf jëf ju leer jëf ju leer ne ju dëppoog ji lislaam digle la wax ju leer eh, ju wane ne dëppoo naaj lu islaam nangu jëf ju lislaam nangu ak wax ju lislaam nangu ci anam gu leer ak jullit noonu la war di doxe waaye warta wax lool da koy fiiree layal nit ñi doon ne ko ah loolu kon wàññiwul dara daa war lu mu ñu def bu ko defee rek ku ko seen xam ne lee moom du dëppoog lislaam la buy wax day wax loo xam ne ku ko dégg rek xam ne lii du dëppoog lislaam la Sëñ Tuubaa loolu la digle woon ne nañuy doxaleek noonu ci niti àllaaxira yi mooy ñi nga xam ne lu baax da leen a ñor lu ñuy gis ci noonu ñu di ko def wala ñu di ko wax na doon lu dëppoo ak charia ba duñ ci am xel yaar wala ñu ci xalaat leneen kon di ji ñu nit dañ ko war a bàyyi naan bu soobee diw sàngam dañ ko war a bàyyi bu soobee yàlla rek lañ ci war a teg ji ñu tam rek lañ ko war a def lañ ko war a defee ñeenteelu laaj bi mu ne kuy naafi la mooy kuy julli julli gudul farata rek am kuy julli farata ñew na ra top ci ginnaawam ngir fogg ne day julli farata gi mu bëgg julli mom bu mel ni waxtu tusbaar la am ku ñew ci béréb man na dugg ci jakk xeyna wala ci béréb dal fekk fa kuy julli mu japp ne tusbaar lay julli te fekk kooka julli na tusbaar ba noppi wala ko tusbaar day dawal wala julli na ba noppi da ca toftal eh, mu ñew bëgg top ci ginnaawam laaj bi moy ndax ki doon julli dana sañ a junju junju ki ko topp ci ginnaawam junju boo xam da ko cay xamal ne julliwuma julli gi nga bëgg a julli yow waaw dana ko sañ kay dana ko sañ bu dee ci ngir mi ak ci yeneen ngir yoo xam ne dañuy wax ne kuy roy ci ilimaan mooy kuy topp ci kuy julli daal daa war a fekk ngeen bokk julli bu ngeen di julli bu dee ci ci noonu kon da ko war a xamal ne julliwuma julli gi nga foog julliwuma farat loolu baaraamam rek bu ko yëngalee wan ko ne déedéet rek dana ko ci xame am na ngir yooyu nag eh, aayaluñ ku kuy julli farata te topp ci ginnaaw kuy naafila waaye sun ngir ñi moom nanguwu ko kuy topp ci ginnaaw kuy julli day fekk ngeen bokk julli bi ngeen di julli kon bu fekkee nit a ngi topp sa ginnaaw te nga xam ne moom farata la bëgg a julli te julli farata danga koy junj mu xam ne julli wa farata mu seet lu keneen ku mën a àndal wala mu julli julli boppam juróomeelu laaj bi dana kuy jàngale la ñu mu koy jàngale ci daara waaye liñ koy jàngaloo mu gis ci xadis boo xam ne wérut ndax sañ na ko bañ a jàngale laaj bi noonu la dikkee xëy na jar na seetantal nag xadis bu wérut wér di ga num demee num demee ak bu koy jàngalee nan la koy jàngalee li njëkk moom mooy ginnaaw dañ ko ko jox di ko jàngale loo ñu yilif école ba ñoo ko jox bu demoon ba jàpp ne wérut ñoom la cay waxal la ca wax ak ñoom dana addis bi kat dañ ko dugal ci li ñu jàngale ta dafa mel ne wérut ndax nangam ak nangam buñ ca dëppoo ak moom buñ ko dee génne ñoo koy génne ñoom bu fekkee sañ nañ ko ñoom itam bu dul loolu buñ dëppoo ak moom it ci ne na ko jàngale te leeral loolu ñu ngi koy jàngal te xadis bu wérut itam waxuñ ne bu ko kenn xamle bu ko kenn jàngale waaye dañ ne bu dee xadis bu ñu buñ jàppee buñ sos boo ko teg bu wérut maanaam moo moo moo moo moo moo féete kaw ci wérut yi boobu lañ naan moom kenn sañu ko jàngale rek ne la sañes na ko jàngale sax waaye dañ ko jàngale ngir wane ne wérut maanaam dañ koo sos kon dañ ko jàppe luñ sos bu fekkee wérut nag waaye àggut ca la dañuy xool ci lan la aju ndax day day day day day day farataal walla muy araamal walla muy wane ne nangam dagan na walla nangam daganut bu dee ci mën noona la moom deesut jàngale xadis boobu ba tey te leeraloo ko boo ko jàngalee moom ko jàngal waaye daal wax nag ne wérut nag duñ ci sukkandiku ci lu mel nii bu dee day wax ci leneen nag luy xeetal nit ñi ci lu baax rek te àggul ci doon buñ jàppee buñ sos moom mënees na ko jàngale sax te ci leeral dara ndax lu mel noonu sañees sukkandiku ci hadis bu wérut waaye nag àggul ci ñu ko luñ sos kon daal ràññeel yooyu yëpp war na ci euh, te it waxtaan ak ñi yilif Euh, fa muy jàngale itam jaadu na ci bu laajee mu jàngale ko ta leeral ca lam ca war a leeral mu def ko bu ci déggoo ak ñi ba noppi hadis euh, wér rek da ci am yu ci aju daal te caagoon hadis bu wérul rek kenn sañu koo jëfandikoo sakkantuma nag ñu naan kenn sañu koo jàngale wala kenn sañu koo xamle juróom-benneelu laaj bi <coughs> dafa wax ne li xadis bi ñëw yonte bi di wax ne bu ab xaj euh, maree ndab dañ ko raxas juróom-ñaari yoon te benn ba di suuf am ca buy doon suuf am ci nettali yu daal dikki te juróom-ñetteel doon suuf am bu dikki ne te bu njëkk ba doon suuf li ci borom xam-xam tënk rek mooy te am ca bu doon suuf ñoom lañ ci tënk ci nettali yu guute yooyu te am ca bu doon suuf kii laaj nag ne ndax suuf soosu euh, produit yi nga xam ne chimique la yuñ liggéey te muy setal ndax mën na ko wuutu xeetu saabu wala xeet yooyu rek nga xam ne dañ koy raxase euh, boroom xam-xam yi de dañ ne suuf mën naa am mbóot mu ci nekk am na sax ñu ko ñu ko ci gis am na ñoo wax ne sax ay gëstu wane na ne am na mbóot mu ci nekk moo tax daal li ñuy wax mooy na doon suuf bu suuf amee bu suuf amul nag mën nañoo jëfandikoo yooya am na ñoo xam ne xëy na daan jàpp ne <laughs> nan la suuf di mën a <laughs> mën a mën fii la suuf am waaye am na dëkk yoo xam ne boo fa dem gis suuf doo fa gis suuf suuf daanaka fii la suñu réew yi suñu am suuf ngay dox gis suuf waaye am dëkk yoo xam ne dox fa gis suuf daa du jafe-jafe jafe-jafe daanaka mën nañ dem mënut a nekk suuf si ñu mën bu di ko def ci ndab di ko ci kii kon ñooñu mën nañoo jëfandikoo ñoom jumtukaay yooyu ku ne fu am suuf nag na jëfandikoo suuf ndax ñàkkut ne am na mbóot mu ci nekk ba tax yonent wax ko juróom-ñaareelu laaj bi mooy kii dafa wax ne ku nekk ci réewi tubaab yi réew mu du réew jullit daal rawatina fu mel ne France eh, nga xam ne tënku ca tënku fa ci sa diine na nga ko bëggee day jafe lool ndax dana ko may mu yeexa julli def bu xëyee rek dang ci liggéeyam ba wàcc boole julli yépp bu ñibbee këram julli ko fa ndax di julli ci fudul këram day jafe lool waaw Fra jëmi France ci boppam de moom dafa ràññiku ci doon réew moo xam ne yaatal jullit dafa des lool réew tubaab bi bari ñoo leen tane ci loolu ci yaatal l'islam ak jullit ñi ba tax loolu ñu wax am na ci lu am waaye nag euh, jullit bu nekkee foo xam ne du réewum jullit day day day day day day roy ci jullit ña nekkoon màkka lu jiitu ñu am kàttan dañoo ne ci biirum mbooloo mu leen ëpp doole te am seen tëralin yu fa nekk kon lislaam lañ ca man la ñuy defe nañ ko mane lañ ca man defe nañ ko mane waaye nag dañ sabablu ba xam ne mënuñ lii waaye bu ñëw rek daal ne fii daal xam naa ne kenn mënu fee julli ci waxtoom wala kenn mënu fee nang wala kenn waaye da nga koy sabablu ba noppi da ngay sabablu ba noppi ndax France moo xam fu mu dëkk bu mën doon am na ay jàkka am na fa mu des sa digganteeg ñi ngay liggéeyal ñoom it da ngay wax ak ñoom ndax dëgg la. Euh, daanaka la ñuy tuddee intelligentsia ci ni ko tubaab yi waxee intelligentsia bi ñoom ñoo noonoo lislaam noonu waaye du ne nit ñëpp noonoo lislaam noonu boobaa nag mooy ñu nga seqal boo waxtaan ñoom ci njëkk mën ngaa waxtaan ak ñoom ba xamal leen ne yow kat da am diine joo xam ne daa am lum la sant mu am ay waxtu te li ñuy jël bariwut waxtaan ñoom ci njëlbeen gi def daa bëggoon saa bu julli jotee ñu may ma fukki minute mu julli ci te ñëwaat ci liggéey bi ñu xam ne julli gi itam bu dee ba bi ma ne sànq ñaari yoon ci doon mooy tisbaar takkusaan euh, xëy na bu timis di jot moom nga mën a ñibbi sa kër mooy daal euh, sabab lu daa war a am ba nga xam ne nag euh, amoo bunt nga door nag def ni nga mane waaye doo ñëw àtteel sa bopp rek ndax xam ne ñu def noonu duñ duñ sabab waaye ku sabab nag mën naa am bunt ndax am na am na ñuy sabab di ami bunt am na ñuy waxtaan ak ñi ñuy liggéeyal ñu nangul leen bu julli jotee ñu dem julli julli itam ma a defe yàlla moo yorante bokk na ci may ko yàlla may muy fu lañ mën a jullee loolu tam ñi dañ ci bëgg faral di taral léeg-léeg jàpp ni julli daa am béréb sàngam buñ ko mën a defe waaye yow man ngaa am sax si jaadama àddina si foo mën demal nga fa amuk si fi ñu jaay sa jaata am na fa yow jëndal sa jaata rek waaye liggéey fa boo waxtaanee bañ may la loolu nga dem ab couloir wala ab ruq wala fu mën doon foo mën a taxaw cinq minutes julli sa julli loolu doonut lu lu munta nekk tubaab bi dëgg la am na am na am na ñàkk xajoo gu ñàkk xajoo lislaam waaye nag euh, ku sabab lu lekk-lekk nga mën a am loo am boo sabab loo nag ba ba xam ne tëlee nga nag nga door a doxe doxiinu ku tële mooy ko ñàkk pexe boobaa itam nga jëfandikoo nag yeneen yu yoon maye bokk na ci jiital julli ci mën a jiital mm, walla mujje julli ci mën a mujje yooyu yoon yoon maye na ko ngir ay sabab sabab yooyu itam woyofal moo ko waral rek kuy tukki daanañ ko ko may waaye ku nekk situation boo xam ne it eh, fu mel misaal fekkone da ngay da ngay eh, da ngay wara joge sa keur tousbar jotna ngay liggey ba nga wacc timis dana wessu man nga julli ci sa keur tousbar ba julli takusan tor dem liggey boy dëpp fekk timis jot wala bu ge jotay itam boo julli timis julli ge waaye do do do dem non rek bañ julli genn julli ba wacc julle ndo lepp wala nga jul tisbaar rek wàcc jullenoo lu ci des mënoon ngaa jul takkusaan foofu door a dem yooyu maye nañ ko yu mel noonu dañ koy jëfandikoo moom itam ngir jàppandal moo taxoon yàlla maye ko ku toll ci béréb yoo xam ne laaj na jàppandal googu itam da koy seen jëfandikoo yu mel noonu daal kon mooy war naa sabablu bu sababloo ba sës nag mu def nag lam man waaw loolu rek la mooy mooy mooy bi yàlla dogal na ñoom ñoo ëpp ci réew ma seen xalaat moo fay dox man ngaa waxtaan ak ñoom nag ba am lu ñu la nangul lu ñu la nangulut nag nga xam ne amoo ci pexe nga def ci la nga man nga def la man juróom-ñetteelu laaj bi li dafa wax ne koo xam ne daal da doon ñaanlu nga dafa dem ci nit ne ko na ko ñaanal ci dara wax na ab xew-xew ay kër yu doon lijjantilu ba jox ci nit xaalis kooku lijjantiwu ko bu dem ci keneen di ko ci ñaanlu ñaan loo kooku digal ko ay sarax foog sarak? sarax yooyu lay laaj moom sarax eh, dañ ko digal ab sarax ah ku dem ci nit di di ko ñaanloo bu la digalee sarax man koo saraxe ndax ni mu waxee sarax moom sarax saraxe foog naa am xar wala obu wala nangam loolu dara new ci dara kuñ digal ne ko saraxal ginnaaw moom dem na bay jëflanteeg ñu mel noonu buñ ko digalee lu mel noonu moom mën na koo def buñ ko digalee lu baaxut la war def waaye buñ ko digalee sarxe moom mën na koo def jënd am xar sarxe ko wala togg dara sarxe ko loolu dara newu ci ñu digal la ko nga defal ko sa bopp yëpp dara newu ci xanaa yool ak ñàkk yool la ñuy wax waaye du araam ak dagan moom dana dagan ndax yool dana ci am nag loolu <laughs> moom meneen mbir la xëy na yow yaa am na aajo joo bëgg te jàpp nga ne ci sabab bi mën na caa fajoo xëy na ngirub yoon mën nga caa bañ a waaye nag mën nañ ko bañ jàppe lu du araam juróom-ñeenteelu laaj bi mooy ku faatu ay roñoom dañoo xaree ñu defal ko keneen ndax dagan na loolu la ñuy tudde maye cër maye cër yamut ci roño waaye ci cëri doomu adama yep rek tambale ci bu ci gëna ki moy xol bi xol bi ak yeneen cër yep ki dem ba faatu wala bay faatu tan xamne mané su ko gis kenen ku am kop kop am na ci cëri ki buñ ci mëna jël defal ko ko mu xettali ko boba duñ wax ne dagan na rek waye day lu bax lol sax xettali doomu adama nga ci rawat na bu dee ku faatu ba noppi moom tañ xam ne am na cër bu keneen mën a jëriñoo bu dee lu mel ne roño moom yoru sax nit ak ci faatu nit kuy dund sax mën naa maye benn bi ndax roño benn bi mën naa yor nit ba tax na nit kuy dund sax dana maye benn roñoom ngir xettali koo xam ne moom bu ko amut mën na koo andil lor lor ju mag ci dundam kon lu jëm ci ba ci may deret foofu lay dugg loolu lépp ci diggante dimbalante la ak xettali ci xettali bakkanu doomu aadama loolu lu baax a baax la ndax ka ñu jóge ci moom bu fekkee ñu ngi dund lu ko yàqal sàkkantuwaa nag bu fekkee moom aajo aajo wootu ko ndax dafa faatu walla mu mu mu mu mu muy faatu dañ xam ne mun munuñ munuñ koo dëppati ndax lu mel ne xol moom foog naa bu nit faatoo ba nopp moom du neex a jëriñooti kon koy mën a jox xam ne day fekk nit ki nekk ci yoon te nga xam ne mënut a mën naa dem ba xol bi moom doxatul xam nañ ne du mën a doxat itam ci faatu rek la jëm ñu mën koo defal keneen moom mën a mën koo xettali moom loolu lu baax la kon xeeti cër yépp rek maye ko lu baax la jaay ko lañuy ñuy bañ jaay ci lenn waaye maye gi moom luñ luñ luñ santaane la fukki laaj bi te moo mujj mu ne ndax. Euh, nu ñuy gase ab am na lu ci yoon digle nu ñuy gase bàmmeel ndax am na nu ci yoon digle euh, yoon day xam naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi lislaam ñëwee moom fam nekkoon am na ñu daan dence ku faatu am na ñaari anam yu fa amoon mu am bum ci taamu woon nag euh, foofu nag seen suuf daa am nu mel ñu dafa dëgër te suuf su dëgër bu dee màkk rawatina bu dee madina am na ci béréb yu dëgër moom itam waaye daal seen suuf moom dëgër am na ca suuf yu dëgër yooyu moom ñaari anam daanañ ko fa ci deñ ci nit daanañ gas nii rek kàmbu tàbbal ko ci rek suul daanañ gas kàmbu itam ba noppi yett ci wet gi ndax lu ñuy mën ñatt la ndax dëgër gi mu dëgër ñatt ci wet gi ci ci mir bi muñ ko mënee wax ñatt ci miir bi nonu fofu ñu ñatt fi dañuy duggal ki faatu jël ay mool tëj ko nga xamne sof suñu soti du du du soti ko ci kawam ndax dañ ko taf dañ ko taf ñaari anam yoy lañ daan denc yonente bi wax ne bii moo gën bii nga xam ne dañ koy taf sotti suuf si mu bañ mu bañ a sotti ko ci kawam loolu nag fu suuf su dëgër am lañ ko mën a defe bu dee suñ béréb yi nga xam ne suuf su dëgër amu fi dafa am luñ ko luñ ko jéem a wattee mooy leneen luñ def loo xam ne day mën ne daal dana jur la lee di jur te mooy suuf si bañ a ko ci kawam mooy ñaar yi am ñaar yooyu ni ñuy mën a amee fii moom moo ñu gas genn kàmbar menn eh, pax rek def ko ci sotti suuf si ci kawam loolu mooy tolloog la ñee doon def ñoom eh, gas ngeen benn pax rek def ko ci sotti suuf si kawam loolu achaq lañ ko daan tudde li mën a wóotu nag taf gi ñu ko daan taf te ñu daan ko tudde al laxd li ko mën a wóotu fii nag mooy ñu gas kaam pax mu xaw a yaatu gasaat pax mu gën a ndaw ci biiram xam ne mooy gën a sori kon mu yaatu gasaat ci biiram pax mu gën a mu gën a ndaw pax mu gën a ndaw moomee ci la ñuy def ki faatu teg ci kawam dara fii daañ def ay bant teg ko ci teg caw bant am nañ ci teg sàng dappee teg ci ay xob loolu lépp luñ jublu rek teg ci loo xam day taxaw daal ba suuf suñuy sotti du agsi ci moom loolu mooy wutal lale kon lii ku ko man mooy wuutal la yonent bi taamu woon te def loo xam ne suuf si sotti ko ci kon ñaari anam yëpp yoon fekk na ko fi mangu ko wéyal ko waaye nag taamu na ci benn loolu daal foog naa mooy laaj ci kon maa ngi jégalu ñëpp nag di gërëm ñëpp wasalaamullahi aleykum wa wa barakaatu. 不知道了。